بها نجاة والفلاح مع سرور ونجاة بها رباء والفلاح مع دخاين خمي asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki julli di ñuy déglu di seetaan su ngeen dégloo bayit yu tedd yooyu nga xam ne moom la Serigne Thierno Touré yëkkati ngeen xam ne ñi ngi waajal bis bu màgg bis bu tedd ginnaaw bu ndigal ti koy ci Serigne Sidi Mokhtar Mbacké xalif général di Mouride waaye jaar itam ci Serigne Ibrahima Touré xalifab Serigne Aliou Touré borom barakallah wàcc si itam ci Serigne Ñombe Touré xalifab Serigne Dame Touré mbooleem njabootu Serigne Choy bu Touré gi ñu ngi nii toog ñu fas yéene waajal bisub gàmmo bi nga xam ni moom la ñu fas yéene amal ca dëkk bële di Paleen nekk ca Kajoor nekk ci département bu Kébémer commune bu Ndande ñu fas yéene waajal bis boobu nag ak tegu xeeru daaray alquran ngir suqaliwaat taalub jàngu seen maam sëriñ Aliou ture borom barakallah sëriñ Dame Touré waaye sëriñ Chouaïbou ture mi nga xamee ni mooy seen waaju ñu fas yéene nag teg xeer woowu ci teewaayu sëriñ Abdou Samane Mbacké moom sëriñ bu mi nga xamee ni lépp lu ñuy def dañ ciy déglu ndigalam ndax mooy seen bunt ci sëriñ Touba di seen wasi la bis boobu kañ lay doon gàmmu xam ngeen ni la alxemes lay doon incha allah waaye xam ngeen ni bu ñu gàmmoo ba teg ci ñetti fan di tombeeg dimanche le trois incha allah te la ñu fas yéenee amal nag li nga xam ne tegu xeeru daaree alquran jooju ginnaaw bu ñu gàmmoo ba noppi looloo waral ba waa Pëleen ñoom délégation bàyyi ko na fa ñëw teew si kii yëkkati kàddu ci seen tur di Serigne Dame Fall moom la ñu fas yéene jox mu wax ci turu waa Pëleen yëpp ak waa tund bi yëpp bu ñu noppee dinañu jox kàddu gi borom baax mu wax ci turu Serigne Niass Touré mi nga xamee ni mooy amal bés bi moom it mu wax ci turu sëriñ bi woote ci biir réew mi ak bitim réew looloo waral ba ñu fas yéene yëkkati kàddu gi jox ko sëriñ Dame mu woo mboolem tund waa Kajoor gépp ñoo ngi teew fii tey ci turu waa Palindé di gépp di woote gàmm gi nga xamante ni moom la def. di ci woo tund Kajoor gépp di ci woo département Kébémer di ci woo arrondissement Ndande gépp di ci woo commune de Ndande gépp moo dem 46 villages yi nga xamante ni ñoo bootu ci commune Ndande ñi ngi leen di woo di jiital ci woote bi préfet bu Kébémer di ci teg su préfet bu Ndande Mamadou Diouf di ci teg aadama Fall maire de Ndande bu loolu wéyee mbooleem ñi nga xamante ni ñoo wax ci tundu Pëleen Ndënd gépp bootu ci ñi ngi ciy jiital dëkk bi nga xamante ni moo ñu gën a jege muy Gëtërat ñi ngi leen woo ci bis boobu di ci woo Guy Samba di ci woo Belli di ci woo Ngajawaan di ci woo Sabka di ci woo sëriif di ci woo guy meew di ci woo gëti sàkke di ci woo mbijéen di ci woo daqaaru ngooñ di ci woo mbaaka di ci woo dëkk yi nga xëy moo wër pëleen gépp bu dee Espagne ñu ci tuddu leen yomb faal ñu ngi ci woo ñëpp di woo sunu mag Alaaji Ndaama Faal ca Mbuxeex ñu ngi ko ci woo di ci woo ñëpp barkeb Cheikh Ahmadou Bamba Mbàkke Xaadim Rasul mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam yeesalaat sunu jaayante ci Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Xaadim Rasul ñaanalaat sëriñ Cheikh Sidil Mokhtar sunu boroom yàggal ko si lool te wéral ko ñaanal Serigne Ibrahima Touré xalifa Cheikh Aliou Touré barikàlla mbokki jullit yi mbokk yi bu ngeen gisee toogaay bii ñu toog ci kanam sunu kilifa gu màgg gu tedd gi mu El Hadji Niis Touré xalifa Serigne bu Touré ci waxtu yi ñëpp danañu xam ne la ñu daa woote moo yegsi ci waxtu wii ñuy woote ci turu suñu kilifa alhaaji sëriñ Niass Touré xalifa sëriñ Chouhaïbou Touré waaye mu jóge ci turu ay kilifaam sëriñ Abdou Samane Mbacké moom sëriñ Chouhaïbou sëriñ Ibrahima Touré xalifa Cheikh Aliou Touré barikàlla sëriñ Ñomre ture xalifa sëriñ Dame Touré ak mbooleem njabootu Cheikh Aliou Touré gi yëpp sëriñ nee na mi ngi leen woo ci bis bi bu baax a baax a baax muy bis bi nga xam ne at mu jot ci waxtu wi jullit yëpp danañ ko amal di ci màggal ganek àddina yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam te Serigne Touba Xaadimu Rasuul mi nga xam ne mooy sunu lépp mu fonkoon bis bi lool fonkoon yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam tegoon ko foo xam ne kenn tegu ko fa waaye liggéeyal ko liggéey boo xam ne kenn mësu ko ko liggéeyal te kenn dootu ko liggéeyal ba abadan Serigne Touba it joxoon guddi gi bu ñëwatee ñu di ko dundal te teg lépp ci sunna muy tax siimahoo bi sunnati kon sëriñ bi nee na nañ góorgóorlu ci bis bi ba buñ ca yeggee ñu taxawee ca nañ ca daa taxawee lépp loo xam ne lu sunna bëgg la ñu nekk ca waaye lépp loo xam ne rek lu dëppoowut ak sunna la ah, sëriñ bi nee na ñu góorgóorlu ba buñ ko gis ba bu nekk ci sunum xel sax loolu lépp nag buñ ko defee danañ tabbi ci yaquuduna lil jannati kon nag loolu mooy pay gi kon sëriñ bi nee na nan góorgóorlu na nga xam ne noonu lañ amale bis bi rek noonu lañ ko fas yéene amale ren incha allah muy buñ ca yeggee nan ko baaxoo woon a defal rek nga xam ne tàmbali woon nañ sax njàngum alxuraan mi ak njàngum xasida mi waaye bu yeggee ca bis ba danañ ko wéyal limu alxuraan yu bari ak limi xasida yi Serigne Touba yi ak salaatu ala nabi lu waay man buñ yeggee ca guddi ga it incha danañu ko amal ci teewaayu alaaji Serigne Nis moog nun nooy ànd ca baas ba fanaan fa bu bët set dundal lépp ci sunna ci jàng alxuraan ak xasida ak fanaanee sikkar incha allah kon sëriñ bi nee na na ñëpp bàyyi xel loolu bu baax a baax te waajal ko ñu defe ko nan ko daa defee sëriñ bi nee na woote bi nag mu ngi woo waa biir réew mi bayiwut kenn képp koo xam ne rek daa nga aju ci kajoor sëriñ bi nee na mi ngi lay yëgal bis bi di lay ci woo di ci sàkku sa teewaay ñi nga xam ne it dañoo nekk bitim réew sëriñ baa ngi woo ñëpp bayiwut kenn li tàmbalee Argentine comme ni ko sëñ Daam Fall waxee léegi ba Brésil ba Espagne Italie Afrique ak mboolem daal réew yi nga xam ne rek ay jullit a nga fa waaye ay taalibe Sëñ Tuubaa nga fa njabootu Cheikh Aliou Touré nga fa waaye njabootu Payleen Gëdd nga fa sëriñ bi neen bàyyiwut kenn mi ngi woo ñëpp di leen yëgal it ne gàmm gi it ak yokkute gu mag a mag am na ci ndax ren incha allahu lañ fas yéenee amal tegu xeeru daara ji nga xam ne sëriñ bi moom la fas yéenee tabax foofa ca Touba leen dëdd mu doon daara alxuraan ju mag a mag daara joo xam ne daara ju mucc ayib lay doon waaye daara la joo xam ne dana mën a dalal ay gone yu baree baree baree baree bëri ci kàttanu yàlla suñu borom subhaanahu wa taala woote bi nag ñu ngi ciy jiital sëriñ Abdoul Karam Mbacké moom Cheikh Abdoul Ahad ma nekk ca Kàbbu Gay nga xam ne dëkk ba ab dëkk ma kon sëriñ bi nee na mi ngi woo ñëpp bàyyiwut kenn bis bi mi ngi doon alxames bi nu jëm bu dellusee di la trent novembre incha allah mbokk yi kon bis baa ngi noonu dégg ngeen woote bi dégg ngeen sëriñ Daam Fall ni mu woowee mboolem waa tund ñoom ñëpp kon kenn ku ci nekk na ko waajal ni mu ko daan waajale Serigne Niiss fas yéene naa ànd ak mboolem jabatuk Serigne Souhaïbou Touré gépp ak mboolem taalibe yi ñoom ñëpp ñu fas yéene teew foofa maggal gu gàmm gi ci guddi ga niñ ko daan fas yéene amale kon ñu ngi ciy séntu ñëpp di ci xaar ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.